préparation waxtaan bi nga xam ni moom la ñu am tey fii ci Dakar jagleel ko li ñuy wax fonction publique locale fonction publique locale nag masalan daanaka mooy méngoo ñi nga xam ni ay fonctionnaires la ñu nekk ci état li leen wutale rek mooy ñoom ñi ngi ci collectivité territoriale mais ñoo yem àtte même droit yi fonctionnaires yooyu am ci biir état central loolu la ñu am ci biir fonction publique locale bi ci des mooy am nga possibilité boo nekkee fonctionnaire ci fonction publique locale man nga fay jóge dem liggéey ci fonction publique bu état man nga tamit jógee ci commune bi nga nekk dem ci beneen commune man nga jógee ci commune bi nga nekk dem ci département man nga jógee ci département dem ci commune loolu nag niñ ko waxee mooy faaw ñaar ñi ko seq rek d'accord fi nga nekkoon nangu la bàyyi nga def fi nga jëm nangu la jël ba pare am lu mu la fayee donc loolu mooy fonction publique locale ay avantage kese la am te ëpp na fanweeri at wala ñaar fukki at nit ñi ñu ngi wax pour man ko liggéey donc ginnaaw boobu gën a gën a ne yi ba gën a

bu ñu amul arrêté modèle arrêté yaa ngi nii jox nañ ko gouverneur bu ñu xamul texte yi bu baax defar nañ document boo xam ne texte yépp mi ngi ci mi ci gouverneur donc loolu lépp mën nañ cee jot ndax li ñu bëgg mooy fii ak mars di de arrêté d'intégration yépp ñu man koo jël pour fexe ba fonction publique locale ñu intégré leen wax ni rek liggéey bi kontaan nañ ci jëfin bi moo moo des sur le terrain mais nii ma gisee ñu defee CRD bi am nañu yàqin ni incha allah région Dakar dina bokk ci peloton de tête ci région yi nga xam ni ñoom ñoo liggéey ci fonction locale waxaat tamit ni gouvernement bu Sénégal ci ndigalal président Macky li mu def ci ci ci décentralisation def ko ci ay fonds yu jógee ci état bi ci gouvernement bi jëm ci collectivité territoriale masula joxe naa exemple wax naa ni boo jëlee fonds de yi amoon 2012 juróom-benn téeméeri million la ci région de Dakar laa wax juróom million ak ñeent ak ñett les mêmes fonds boo ko jëlee ci 2020 egg na ñetti milliards ak genn wàll daal

donc daanaka juróom fukk ci juróom fukk ak juróom benn yépp war nañoo séddoo fanweeri milliards ak juróom benn ci ñeenti at yi ñu jub donc loolu day wane rek président Macky Sall fonk mu fonk décentralisation jël na décret nee fukki fan yu ne ci weeru octobre journée nationale de la décentralisation wax na it ni pakaseen bi commune yi nekk Sénégal ak département yi ci amagul dina maasalal ñep pour ñu am ñun ay financement yu doon jox leen wax na tamit ni ci atum ren dina présider conseil présidentiel sur la décentralisation donc loolu dafa wane rek ni li nga xamni mom moom la teg moom la teg bët décentralisation bëgg na ñu jàppale ko ci mom maire yeeg président conseil départemental pour que politique publique définir li nga xam ni mooy programme collectivité yi tamit jàpp ci loolu la ñu amoon di ko wax ginnaaw bi ñu gën gërëmee ñëpp sant leen